di wax na li ñuy wax ci commune yéen nag moo di lii du lu bees daaw defoon nañ ko ci jamono bi ñu ñëw defaat ko avant école d'étude ji li ñu ciy mën a wax moo di personnel administratif bi day euh, ubbi ci Sénégal yëpp altine bu soobee yàlla alxames ba sa topp muy le 14 si la élèves yi di ubbi pour euh, mën a regagner les classes euh, marqué ouverture bi comme ci Sénégal yëpp mais liñ ci am dañu dawlu ci mbéret boo xam ne bi ci période mbas la ñu nekk aussi donc service d'hygiène ak état bi mu ko accompagner ñëw def euh, saupoudrage ci école yëpp dafay nekk loo xam ne li mesure d'hygiène yi ñu jëloon tamit dafay baax pour que élèves yi avant ñuy ñëw ñu man ko fekk ci euh, école yi nga xam ne mooy abrité Euh, le personnel enseignant ak les élèves donc ñu rafetlu bés bi dal. So gisee yeen tam ko nag suñu partenaire suñu collaborateur lo xam ne ñu ñu soxla ñu ko dañu dañu accompagner té euh, li nga xamné mom lañu la tay ñom fi ñoo ñu ko jox parce que gis nga auto yi ñëw nañu ñoo joxe carburant bi joxe euh, produit bi donc ñun dañu tàmmu yeen pour def fi lancement bi té dañ ko def dans tout le département de de de de fi ma waxé yeen ni amna équipe bu dem Sébikotane am amna équipe bu nekk Diamniadio benn équipe baa ngi nii à Ayen donc fi ba le 11 incha allah dinañu dina boucler département bi école yo xamné amna ñu nañu ndox am na am ñu ndox limay wax nag école yo xam ne amuñu am na ñoo xam ne toilette am na ñoo toilette dafa yaqku yow mëno wax eh, eh, xeex mbass mi bo paré te amo ndox so waxé so waxé mesure barrière lamay mesure barrière moy nga nga aaru ci feebar mbass bi té ci mesure barrière yooyu wax na le lavage des mains mëno wax nitik lavage des mains te raxasuloo te balaa nga raxasu nga am ndox je recrutement encore une fois président de la république service service parce que ce dépassé ci valeur 3 milliards def nako ci ak ay produits ñu parce que limu def parce que ñun ñu koy remercier bu mais limay wax à son excellence moi moi moi moi moi moi euh, personnel bi personnel bi dafa néew parce que soo xoolee Sénégal yëpp euh, effectif bi moti 500 éléments te lolo dafa à part ça aussi am na ñoo xam ne dem retraite maa ngi wax euh, son excellence mu jàppalaat ak le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sar, de ñu yokk recrutement bi recrutement bi cette année am de mais de dafa dafa tuuti par rapport ak Sénégal.